commencé sans doute ki nga xam que Modi euh, Madjabal Djagne Diagne tam itam xam ngeen ko exactement mu nek euh, journaliste bi nga xam ni itam boobu mi ngi def ay révélations jëmale ay ponk yu gëna a fasantiku mbokk yi jàppee ni tam ki nga xam ne que moo di Madiambal candidat aux élections législatives mi nek dans le viseur justement bu sûreté urbaine man ni kon nak ben ko plainte déposé exactement contre le journaliste mais aussi le patron de presse euh, bu le quotidien jappé ni tam mom ki nga xam que mu Diagne daal di euh, aussi bokk si nga xam ne que moo di liste bu euh, Amadou Ba di jàmm ak ñëriñ waaye itam euh, le toro boobu de li nga xam ne que moo di plainte kenn ku dul ki nga xam ne que moo di Ousmane Sonko. non le ko les échos di euh, la même source m'explique que ni la tête de liste bu Pastef moo daal reproché Madiambal Diagne euh, des attaques répétées madame attaque yi pas mis un itam boobu ba mi ngi dal euh, contre sa personne exactement mon ki n'a pas mis que moo Ousmane Sonko n'a jàpp ne loolu du bàyyi ci benn yoon mu daal di jàll Pastef mi ngi nekk si ay tànku si ki n'a xam que Modi di Madiambal Diagne moom ki n'a xam que Modi di Diagne n'a pas tardé justement à réagir par rapport ak wàllu wu mel mom nak jàpp na ni au moyen utilisé pour le chef de Pastef pour le neutraliser et l'empêcher de battre campagne euh, martel Ousmane Sonko qui est en train de donner des coups en cette période de campagne euh, doit s'attendre à à à à en recevoir exactement Qui euh, n'a ramené que moo Ousmane Sonko jamono ji mi joxe ay coups si li nga que nekk campagne bi durant ces révélations donc on yoon la mourad daal di doon xaar moom itam ay révélations itam jógee si ñeneen dal di si mom exactement alors moom ki n'a xam ne que Ousmane Sonko jàpp na ni Madiambal Diagne da koo bëgg a empêcher euh, mu daal di battre exactement li n'a xam ne que moo di campagne si fi ko gën a fasanti exactement alors Serigne euh, ma ni information bi wàcc na euh, la sûreté urbaine nag jamono ji mi ngi nekk dans le viseur bu ki nga xam ne que moo di Madiambal Diagne ginnaaw bu fa leader de Pastef bi daal di yóbbee li nga xam ne que moo di booba de convocation Madiambal Diagne nag dañ ñëw exactement tout à l'heure sa réaction mais tout d'abord acte bi nga xam Ousmane Sonko yëkki na ko daal di Euh, jeexal mbir yi si kanam yoon ak wàllu yoon nan na ko daal di jàngatee concrètement sëriñ waaw euh, ne serait-ce que Fallou pour l'éthique et la déontologie ma Diagne du journaliste ne serait que pour l'éthique et la déontologie parce que Madiambal non Madiambal attendons attends attends nga xam fi ma jëm hmm. Madiambal Diagne journaliste la boo xamante ni pratiquement new ma du wax dëgg de mais li muy wax dëgg bariwul

Madiambal Diagne ñi doon ko gënoon di promouvoir ne Ousmane Sonko rebelle la moom ca la bokk ñi gënoon di promouvoir ne Ousmane Sonko salafiste la hmm. ca la bokk ñu gënoon di promouvoir ni Pastef dafay jël ay fonds yoo xam bitim réew lay jóge di ñëw moom ca la bokk ñu gënoon di promouvoir également ay forces spéciales en l'occurrence waa Pastef di leen ko jiñ Madiambal Diagne ca la bokk te nag ña te te te te amaana lu bëree bëri tey la mu doon wax histoire démentir na ko hmm. tout récemment wax na ni le président Macky Sall ak waa Pastef en l'occurrence Ousmane Sonko dañu am benn protocole bu leen lié. Hmm. muy protocole euh, Cap Manuel. xam nga wax na ko plusieurs fois maintes fois ba ki nga xamante ni mooy le plus concerné muy le président Macky Sall. génn hmm. weddi ko. Hmm. ba mu set wecc mag jàmbal jaañ tegaatu ci ay jamono mu génnaat ni. pécuniairement financièrement le président Macky Sall dafa soutenir Pastef pour ñu jël nguur gi. loolu yëpp Macky Sall démentir ko formellement. te que jàpp naa nag majambal Diagne bu fekkee ne ab journaliste la nag ab journaliste lañu gën a xaar ci moom. Mm. moo di étique ak déontologie ak wax dëgg. Mm. kon jàpp naa ne gis nga li mu jot a génne ci dernier moment yëpp dara du ci dëgg majambal Diagne ci populisme la nekk ci haine la nekk ci manipulation la nekk. maintenant nag tey kàddu yi nga xamante ni daan na ko jël mais nekkee si si manipulation. mais mais ah, mais mais mais lire nga ko à travers déclaration. mais parce que il s'est invité. si euh, seen politique bi exactement ñaa di ko investir. si li nga xamné que moo di jàmm ak njëriñ Ousmane Sonko mi ngi donné ay coups euh, c'était prévisible pour mon itam mu daal recevoir de son côté. quand même non xam nga xam nga xam nga fall il faut que ñu ñu ñu d'accord ci ben affaire. ok Madiambal Diagne yóbbuwuñ ko ci kanamu yoon manam déposer wuñ plainte parce que tout simplement c'est un homme politique légui mom c'est un homme politique. il l'assume on va koy assumer. jambal hmm. Diagne ken jëlul plainte yobbu ko ci yoon parce que tout simplement c'est un opposant politique wala parce que mi ngi joxe c'est ci espace politique ma Diagne les avocats de Ousmane Sonko les plainte yóbbu ko ci c'est parce que tout simplement. Hmm. japp nañu ni amna ay propos diffamatoires yo xamanteni yag yàgg na ko wax ci te ko teg ci Sonko te moy li ma doon rappeler léegi. parce que bo xolé la première fois bi les avocats de Sonko wax dañuy déposer une plainte contre Madiambal Diagne lan lañ waxoon comme lan lañ ko bëgg topé mais diffamation diffamation lañ waxoon. parce que nee nañ kàddu yi muy jël te dara du ci dëgg di ko teg ci teg ci ci ndoddu Ousmane Sonko loolu la te bu ñu fàttali nag. mais attaque répétée ak diffamation. oui attaque répétée parce que mën a def dara sëriñ mën a def dara ma koy attaqué si topp di si topp ba man maa koy tooñ. waaw exactement diffamation mooy révèle loo xam ni itam nekkul dëgg. waaw euh, Madiambal Diagne euh, avec euh, ta peut-être d'information bi nga xam itam jàpp na ni si am na ko si ay ponk yoo gën a fasantiku donc est-ce que loolu mën nañ jàpp nii il ngi a di diffamer Ousmane Sonko concrètement. Oui, mais li ma la fay yi ma rappelé léegi yow déggoo Madiambal Diagne promouvoir fi Ousmane Sonko rebelle la salafiste la day le mouvement euh, force démocratique bu Casamance. Hmm. bi génn tout récemment. tu as vu mais loolu fàllu fii la la fekk nañ waxante dëgg fii mais est-ce que ce ne sont pas des propos diffamatoires bu dee amul du diffamation. yàgg nañ di di di waxal Ousmane Sonko lu dëgg. à noter aussi Ousmane Sonko yàgg na di leen. waa léegi Ousmane déet. exactement xaar ma ñëw non non xaar Fallou Fallou il faut ñu def la part des choses. allez-y xam nga bu fekkee Ousmane Sonko dafa jël ay kàddu. Hmm. yu del yu dul yu dul noonu wala yu dul dëgg wax ko ma jàmbal jaañ kooku moom la ak Madiambal Diagne bu ko ma jàmbal Diagne yóbbul si yoon kooku responsabilité jàmbal Diagne la mais Ousmane Sonko su ko neexee bu ko ma jàmbal waxalee lu mu ko war waxal mu yóbbu ko si yoon wala problème. Ousmane Sonko képp ku mës a yëkkati kàddu wax si yow kàddu googu nga leer lii mu la waxal du dëgg mais boo demul si yoon lu si lu si suñu yoon ñun du ñu ñoo naan demal si yoon de. mais en tant que premier ministre. waaw mais dama ne. mais premier ministre dama ne xaaral ah. xaaral non avant laa la wax avant mais waxuma ne ci campagne bi nii. waaw mais campagne bi la Sonko biral plainte am te mi ngi encaissé. assaini <laughs> boobu ba Sonko mi ngi boxé mi ngi envoyé ay coups. si campagne bi ko biral si campagne bi tamit la porter plainte contre un candidat. Madiambal Diagne la la wax si la la wax si campagne yow yow plainte bi ñu wax dañ koy dañ koy dugal da nga xam lan lañ lan lañ def ko motif. attaque attaque répétée génne neen motif yi. waaw waaw euh, euh, attaque attaque répétée ok waaw léegi li ma wax nii du attaque répétée. Hmm. <laughs> en fallu. Hmm. li ma la évoqué léegi du ay attaque répétée mais Sonko nit la ak li muy nekk nekk premier ministre mais nit la. nit la il a sa dignité quand même à protéger et à préserver oui le problème ñi muy ñi Sonko di waxal nañ dem yóbbu ko si yoon nañ ko calamer mais sëñ xam na dañoo nekk si euh hay haute cour de justice nga ma bëgg a wax. dañoo nekk si benn si benn si benn si benn si le euh, terrain bu xaw doy wax exactement. muy terrain lan terrain politique. waaw Ousmane Sonko campagne bi il a préféré defee ko ay révélations exactement waaw waaw di génne ay dossiers mille milliards étant d'autres étant d'autres Le mort de M. aussi étant d'autres étant tant d'autres rien. donc est-ce que Sonko euh, le terrain dont il s'est invité être un terrain bi nga s'est invité ses opposants war won xaar genre concrètement wa mais dama la être dans un contexte politique dans une campagne euh, électorale hmm. est-ce que est-ce que ce contexte là vous donne droit à dire n'importe quoi sur le dos des gens en fàllu hmm. dama ne nek ci campagne électorale hmm. est-ce que daf la jox sañ sañ wax lu la neex ci kaw nit ki non mais campagne bi toutes les propos euh, propos yëpp luñ fi mën a yëkki dafay engagé irresponsabilité candidat bi <laughs> ku la ko wax kon lan mo taxoon ñu ne nañ jàpp nañ jàppi kii nañ woolu euh, Abass Fall non on ne vous donne pas tout ce hmm. droit là être dans dans la campagne présidence dans la campagne électorale ne vous donne pas tout ce droit là de jëlal jaasi nga gor fi nit nga ni si campagne lañu nekk ba xam jëlal jaasi na benn candidat jël jaasi dóor ko nit. Hmm. ñu ni si campagne lañ ne bu ñu wax dara cela ne vous donne pas tous les droits de Fallou. Hmm. faut faire très attention mu ngi mel na ñu naan euh, waa ji député la dafa am immunité parlementaire kenn mënu ko topp. non am na ay contexte yoo xamante ni boo fi defee flagrant délit dañ lay jëli jàpp yóbbu de. est-ce que comprendre nga bu hmm. fallu être dans la campagne électorale ne vous donne pas tout droit. mais eh, mais si une campagne électorale bi amuñu droit là. la. amuñu droit euh, jàpp la euh, amu amu droit aussi non am nañu droit mun na la convoquer mais amuñu droit jàpp la. waaw là, la laa wax droit jàpp la continuer exactement. la euh, procédure ce dossier. Normal. la ne vous donne pas tout droit. Hmm. man kay li wax c'est tellement clair dama être dans la campagne électorale ne vous donne pas tout droit wax lu la neex wala def lu la neex liberté bo gis amna la liberté des s'arrête. Hmm. non commence là où commence et s'arrête celle de l'autre. oui. ok alors c'est clair exactement mi ngi par rapport ak euh, li nga que la plainte bi nga euh, ñu né annoncé d'après les euh, échos par Ousmane Sonko ko que modi Diagne ñu dal ñu itam benen information bo xamné itam du côté de la régie Madjabal